waaw xale bi ndox mi nga naan ba noppi moom nga sànni nit ñi fii xanaa xamuloo ne sachet bi nga sànni tey jii mën na laa jëriñ njëriñ loo xam ne doo xam fan ngay teeree jeeg moom parce que sachet bii nii tey ji moom moo gën a cher li nga xamante ne moom mooy or ndaxte dafa am kuréel gu mag goo xamante ne ñu ngi leen di woowee KS ñoom ñooy dajale yii nii di ko faral di jënd ci nit ñi boo ci amee lu tolloo kilo daañu la ko weccee kilo bu nekk 300 xamuloo woon lool de bés nit ki tey na nga ko xam te nga def ko sa gànnaay aywa mbuus mbuus aywa mbuus ngi nii nag ki mooy faral di jënd mbuus yi nit ñi de l'impact négatif des déchets plastiques sur l'environnement, l'OCAE s'est engagé à rejoindre la politique nationale et internationale pour mieux collecter et traiter les déchets plastiques. asalaamaaleykum mbooloo mi. maaleykum salaam maaleykum salaam. ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi. Mhm. di leen delloo ngërëm. Mhm. ngeen xam ne sama jarbaat bii ngeen xam ne ñëwoon ngeen bëgg si ko soxna. Mhm. yéen ñii ngeen nekk xariti ol ñàng kii nekk ki nga xam ni mooy ki ma ñaan si woon. mooy ma am ci fierté boo xam ne jéggi na dayoo. ci weeru koor ci weeru koor ku ci doxal diine yaakaar naa ne amul. diine amul app amul app fii la yem amul app ci àddina ma di leen gërëm nag di leen sant di leen xamal na leen ne <clears throat> sama jarbaat nag jox naa leen ko dama leen kaa jox pour mu ñëw seey si pour mu ñëw seey si parce que sëy laa ko sante moom laa ko yebe ma bëgg nag dégg naa sax day wujje wujj la mais yooyu yëpp lislaam may nonu ba ñeent man mi wax ak yow mi tay soxla na ba ñent jongoma yalla na fekk nak ma man ca dara waaw xam nga lolou tamit jar na ci so di len gërem nak di len sant xamal na len ne sama jarbat la bëgguma nak ay do wala lu bon wala leneen bo len amé lu len naxari ni ngeen doxé ba ñew ñaan ma ma jël may len bo len amé lu len naxari na ngeen tal seen auto ngeen dawal ba ci man xamal ma dama li amna lo xamne tay daf ñu naxari bu boobaa man ma fajal ko sama bopp man jal bu ak jal caam lii daal laa moom lu may wax sant leen nag gërëm leen waaw alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin amin amin amin ndaxte kat lii rek la julit mënal moroomu julitam dëgg la dëgg la ah sëñ Fall mu ñaa nga de di sama wóolare di sama xarit daanaka sax maa ko mag Mhm. waaye man la jël comme xarit dëgg la ñii tamit ay xaritam lañ day def ah dëgg la yàlla day def kon mhm. bu waree jël soxna yabal ma mhm. munuma lu dul taxaw ci waaye ñu ngi lay wax ni xale bii di sab jarbaat daañu ko téye fukki loxo ak juróom ah, du mën dama kat yow sama sama nawle nga te bëgguma kat nga taxaw ne ah li moo diggante aw defu la ka ah, ah, loolu gàcce doon man ba dina ma gën a ñaax ki la xale bu jigéen bi gën a ñaax ki la oon ñànga mm-hmm. ba tax na mm-hmm. loogu moo tax tey jii mm-hmm. nu nu nu daje fi daganal diggante bi xarit yi ñëw mbokk yi ñëw ñëpp ñëw si weeru koor dama sant yàlla de parce que fi mu tombeel moo tax weeru koor parce que weer wi yàlla def na xëyru mi alfiseer yi dafa nekk weeru bu gën junniy weer dëgg la kon nag ku si takk sëy ah xale yu jigéen yi nañu ñaan yàlla sëy si weeru koor waay ah, nañu ñaan yàlla sëy si weeru koor parce que waaw ngëneel la. waaw waaw dëgg la yéen xarit yi nag gërëm na leen tamit sant na leen. Mhm. seen taxawaay rafet na. Mhm. parce que àdduna lii la. mburu ak soow la. wala mburu kaani te mhm. mburu kaani la ñëpp di bañ a gis. kon fii sama yaay nekkoon ku yaayam yaa ngi dégg léegi nag moom muy ñëw suñu dëkk yaa ngi dégg bu ñëwee suñu dëkk du du fàtte macaroni ndax xam séeréer ku ko andil macaroni yaa ko moom ay ñu togo ay soos ba du bàyyi biscuit ak mburu yaa ngi dégg kon nag bu xewlee ma dégg ko fu ma jaar ñëw maa ngeeg yow nag fii ci kër gi leneen nag moom amit dangaa pankoon de na nga wàññi de nga dëkkee xale da daal feex rek de am na way woo xam ni nag bariwuma ñu ma koy woyal waaye gis nga yow fu ma jaar woyal la way bii yaa ngi dégg ndax dangaa àgg si sama xol bii moo tax tiim waa nijaay kan? li lan la kan, eh tagal tagal tagal lan mo fi xew dew ma fen expliquer ma lan mo fi xew yow yow yaangi soor ñew ken dalal ko la ngay rëpp rëpp dalal waaw kan? boo ma xamul danga may laajte ah, ah sa jarba bi sopna na di waaw ki kan la lama wax ki yaayam ndax sonu dekk ba la jaay bañe ki da ka sonal yaa ji ma takaka o yobale kon yow su la déggee bu baax ki sa jabar la kon ñaar ñi nekk say jabar ñetteel. ñetteel moo la. Eh, ñaar ñi ah eh, eh waxal kan eh, mooy kan la yaayam doon jaay beñe. ah ah kenn yaayam jaayul beñe ma waxuma beñe de. xam nga lu ma leen xamal xam nga lu ma leen xamal waaw. wax ji na rek le waaw mu jee sama yaa ma tooñ sëñ Fall ndànk rek xam nga ne kii wuyu la kii jar tamay jabar déet déet sëñ Fall bul waxee noonu ah bu tëkkalee nga ba pare sëñ Fall bul waxee noonu ah bul waxee noonu kii góor la nga droit am ngeen di jabar waaw vous savez la parole na xul la rek. ah ah man noonu laa bëggulaa ma damaa yéem rek dama yéem. xëy na kay defuñu moo ñu. bàyyi baat bi waa leen waa leen. yaa ngi yaa ngi nii am ol manuñ ma ne suñuy wax lépp. du lépp la ñuy wax fu mu ne nii jabara ngi nii. beneen ni ngi nii ñuy tax keneen ñëw na tojal de idi baa bi dangaa dugg ci koo xam ne workat la xam nga bu ma xamoon lii du ma jóge suñu dëkk dugg oto duggaat oto ñëw ba fii ya ya ya ya, ya. Eh, ya ya déedéet nag li nga ndew on dig nana waaye nag ngi waroo jël seeni xol di ka jaxase mais dig na ka dig na problème fa gën dig na comme ça ci dig na fogre séeréer daa war a am jom eh, ah eh, a cuk la fi ñaam ko eh ina dig na fa taxawal eh xamal lu ma bëgg wala wala ñaare wala ñette waaye ma ne ñaari waaye déglu leen ñu. yow sax xaatar xaatar gi yëpp. a waaye ma ne waaw yow yow waaw li ñuy réglé gi nii réglé gu réglé guñ ko yéen ngeen ngeen tàmbalee wuute ah, lan la ma ne ma ne soxna si Binta déglu leen ñu ngir yàlla yow yaay magu kër gi yow yaay awo buuru këram ma ne xam nga léegi d'accord joor baal ma ak ko korgee ma jàpp ma ne yaay awo buuru këram yow yaa war a régler situation yi mais ni ngay doxalee du nii kon nag kan mooy ñaareel waxal mu leer kon ma fonto ah man kilifa la ma léegi may ma may ma kii alamam nawle ah léegi may ma gan moom mën nañ koo tere lépp lépp ba mu des xool ak nettali ah yaay bool jarul nettali nag mbir mi moom nañ ko yemale. coow nag bëgguma ko. yaa ngi dégg aaw baa ngi nii mais nag sama jarbaat de du sëy ah du sëy de. kuy aaw. Ah,

taxawal taxawal.